gin gi ca gin gi ca gin gin gin gin gi gin gi gin eh gin ca gin ahlan bikum dal leen ay jàmm affaire caan caan ga jeex na affaire dëgg dëggal ga loola ba nga ay yow seetal Macky Sall da koo fàtte ay yeew setal mu daal di joxoñ baaraamu tuuma ki nga a ne nii moo fi jotoon njiitum réew mu Sénégal maître Abdoulaye Wade baayu Serigne Karim Koso Wade ay yeew setal affaire jaxat jaxat nga jeex na affaire dëgg-dëggal nga laa la bëgg a wax palais de la justice wala. national bu Sénégal démb daal ay xuloo ki xaajoo ki ŋaayoo moo am palais justice maa wax lu ni mel ku jege ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall démb daal dañ loon xuloo dañ loon xeex di dóorante ay arrêt bay dugg boîte vocale ki nga xamante ni mooy Macky Sall moom dafa mujj di whatsapp maa la wax lu ni mel ndax dóor yi nga xamante ne ni la ko ku jege daal di dóor dóor met ay yow Sénégal li nga xamante war nañ koo seet mooy lan nga xamante ne moo nekk Sénégal loolay li tax maire bi nga xamante mu ngi jaayi marché Sandaga bu Pikine maa la wax li ne ma asafurlaa damaa juum marché Sandaga moom daal amul lenn lu muy def lu dul dem sa loobe ba da di yettalu punkalu maamu dafa ngul ne waaw waaw daal di koy teg nag sa wetam nee na daal Sénégal amul kaaraange Sénégal amul sécurité waaye képp koo xamante ni ñëw na pour pare koo rey maire bi daal xam nga lu muy def day jëlam nguur day am rek di la ko mukki di la ko mukki di la ko mukki ba nga ne ngalaj leneen li nga xamante ni nii ne moo ne ngalaj ba di war koo wax du lenn lu dul waa Gàmbi ne ñoom te da tuñ na la wa tuñ maa la wax lu ni mel yéen da tuñ ay yow setal ay yow setal ki nga ni moom mooy Yaya Docteur Jeejo et docteur yi ay ay jeejee jàmme ndax gañewuñ ko a ah, xaw ma si lu si leer na waaye gars yi joxoon nañ ko baaramu tuuma waaye déglu li nga xamante ne nii moom la Yaya Jammeh wax ñi nga xamante ne ñoo dëkk Gàmbi yéen ñoo ne wax ba sebe abri bisi ma fayil kem waa Sénégal yéen yéen mën a dula man maa ko wax dégg nga mën a dula lu tax ku nekk naan Yaya Jammeh dañ ko génne biir Gàmbi ya diggante Faaraatu Yunus Busu Mbala because boobu yëpp man maa ko gañe maa ko ratale nga nekk di wax na Yaya Jammeh dañ ko gañe ma ne képp koo xamante ne nee na Yaya Jammeh doo ko gañe bu ma ko téyee dana yow dana affaire caaxaan neen ko bàyyi waayo leneen li nga xamante ne war nañ kaa wax assemblée nationale dañ koo war a toj rajax rajax rajax maa la wax lu ni mel ndax xuloo bee xaajoo bee ŋaayoon foofu lay buujoo ki nga xamante ni mooy Moustapha Cissé Lo dem mu dara amul lenn lu muy def lu lu téye soxna sa di mu muqi di ko muqi di ko wax loo xamante ni maara day taali ba weñ bu ci dar daal di dee